mag la woon tool bu rëy la woon lii mu soppeeku doon ciment ak suuf loolu la dëkk bi yëpp mel te ñu ni nag ñun dañu bëgg a suñu réew dañu bëgg bay dunde bay dundal bay jëriñ noo koy defee lii c'est cette contradiction que Khalifa Sall président de la République fas yéene faj fexe ba mbay nag doon fa mu war ne muy activité boo xam ni day dundal askan wi mais surtout askan wi da ciy dunde mais askan wi da ciy